kenn kuy gañee élection Sénégal tey premier tour amul kenn ku mu neex nag yëkkati loxoom ku mu neex fëgg dënam dama ne su baat ci kaw matagul at ci ginnaaw njabootu Ablaye wat ak njabootu Yewwi Askan Wi ñoo lëkkaloo joxante loxo pour am à peine cinquante pour cent kon nag nañu respecté Sénégalais yi parce que gisuma tey naka la njabootu ab Ablaye Wade mën a am seen candidat njabootu Khalifa Sall am seen candidat ñeneen am seen candidat ñit fëgg dënam ne tey day gagné premier tour moo tax may sàkkwaat ci président Macky Sall euh, na may ñëpp aafiya ñëpp mën a bokk ci élection yi ndax xel yi euh, mën a dal xol yi mën a féex mooy suma gëm-gëm mooy suma gis-gis mooy suma xalaat beneen bi nag mbokk yi may lancer un appel à tous nos amis de la gauche tey candidature bu ñuy porter à travers la modeste personne de Khalifa Ababacar Sall candidature boobu c'est une candidature de principe candidature de valeur candidature d'avenir euh, naam dëgg la am na ñuy naagu di fàtte ma leen di fàttali que lu ñu jëlee parti socialiste lu tax ñu dàq ñu ci parti socialiste tëj ñu ci kaso bi presque ñetti at mooy parce que dañu yëkkati woon suñu loxo. ne dañu am ambition bëgg jiite Sénégal bëgg a liggéeyal Sénégal bëgg tabax ëllëgu Sénégal loolu moo waraloon ñu tëj ñu ci gaso bi dàq ñu parti socialiste fokk suñu ay mandat moo tax socialiste yi ñu ngi leen di tàllal suñu loxo yi te incha allah am yaakaar ci ay fan yu néew dinañ mën a toog waxtaan waxtaan waxtaanu Sénégal ak waxtaanu ëllëgu Sénégal parce que ku tudd Sénégal di nga tamit. Euh, démbawu Sénégal te ku tëdd te ku tudd démbawu Sénégal di tudd lu parti socialiste jot liggéey Sénégal euh, mbokk yi ngeen même wax ak ndaw ñi euh, yéen ndaw ñi yéen la jeunesse du Sénégal yéen yaa leen di ëllëgu Sénégal waxu dialogue bi il y a eu beaucoup d'émotion il y a de passion wante bu leen nangu kenn di lëndëmal seen xel wala di yàq seen xalaat dama ne jàmm ci la lépp a xaj tey yàlla defaral ñu sutura président Macky Sall nangu respecté kàdduwam bu kenn yàq seen xel pour ngeen dem defi leneen ba may président Macky Sall prétexte pour mun moom tamit bu leen defi leneen te xam ngeen fu may waxee ay ndaw ngeen yàlla may na leen xel macha allah. te nu ngeen di ko waxee yenn xale yi na ngeen yéen da ngeen dégg daaj ma ne Sénégal du moomeelu kenn ñun lu ñu mën ñu ngi koy dox lu ñu mën ñu ngi koy wax lu ñu mën ñu ngi koy jëf mais dañ koy def ci kaw lu ñu yoon may ci sañ-sañ dama ne képp kuy wut nguur Sénégal benn yoon kese la la yoon may nga am sañ-sañ di ko wuti ci yoon boobu mooy yoonu élection amul beneen yoon amul beneen yoon constitution bi mën ngeen ko gestu ngeen xool ko côté bu nekk benn yoon kese la leen constitution may pour mën a conquérir le pouvoir mooy ngeen jaarale ko ci ay élection amoon nañu ñu seen xel ñaawoon ñu jàpp ne ni que président Macky Sall namul organiser élection wante lu ñu mën a jàpp tey mooy président Macky Sall nangu na respecter kàddoom mooy benn bu ci tamit ma leen di rappeler au passage que moom kese la yoon may sañ-sañ mu mën a signer décret présidentiel pour convoquer corps électoral man leen may yéen askan bi ngeen tànn kan mooy doon seen njiit kon nag bu leen may kenn mu leen di dugal ci guuta ba guuta boobu mën a doon excuse pour que ku mel ni président Macky Sall dellu siwaat ci décision te lu may wax dafa am solo mbokk yi dama ne réew mi du moomeelu kenn ñépp ko bokk fii su amulee benn kilifa diine bu fi am xalaat que dëkk bi moomeelam rek kon daanaka ci gàttal amul benn politicien bu fi mën a juum ba xalaat ne nekk dëkk bi moomeelam la moo tax mbokk yi ñu fi yàlla sax yónni moo xam Jésus Christ moo xam la prophète Mohammed paix et salut sur lui l'injustice a toujours fait partie du monde des hommes noonu la àdduna tëddee kon nag képp kuy jullit jullit mooy kuy julli yaa xam catholique nga yaa xam musulman nga jullit nga da ngay julli da ngay nangu gëm yàlla teg ci nag wóolu yàlla parce que lépp lu doomu aadama di dund ci kaw suuf si balaa muy juddu yàlla bindoon na ci destin que lii la dina ko dund moo tax ñun du ñu gëm mooy lépp lu tubaab di woye épreuve de la vie moo xam bànneex moo xam tiis moo xam mettit su la ko yàlla tegee moo xam da koy gisee mel ni nattu la na ko dund dund ci ànd ci ak diine ànd ci ak gëm yàlla ànd ci ak wóolu yàlla loolu mooy jullit ku fi wootee leneen maa ngi jégalu ci kàddu yi dama ne Sénégal du moomeelu kenn ñépp a ko bokk ku fi bëgg a woote nag mbiru naafiq na ko na ko xale yi dëggee noonu na ko askan bi gisee noonu wante dama ne taal Sénégal yàq Sénégal bëgg dugal Sénégal ci guuta ndax sa bëgg-bëgg kooku wax dëgg yàlla duñ ci mën a ànd ak ñooñu duñ leen ci mën a jàppale. lu ñu gëm tey may profité waat ci occasion bi pour tàllal suma loxo yi à toute la classe politique yàlla kese moo xam kan mooy utu président Macky Sall au palais de la République mais particulièrement ak à la coalition. ñu jàppee seen bopp ñoom ñooy représenter opposition nañu xoolaat seen taxawaay xoolaat fan la leen sénégalais yi teg ak ban yaakaar la sénégalais yi am ci ñoom amul fenn ci charte coalition opposition fu ñu bind ni kë ñit mindeef moo ñu tax a jóg mindeef ñu jóg Sénégal la ñu tax a jóg injustice nag bu ñuy teg ci kaw yenn mindeef yi ñun ñëpp gis nañ ko te balaa ñu koy gis ñun ñii dañ ko dund ñun ñii dañ ko dundu dund suñu suñu biir suñu biir euh, coalition taxawu Sénégal dund ko aussi bien ci humiliation kë ci manipulation que ci une fois de plus injustice notoire mais lu am solo tey mooy yàlla tey ci mbaaxam àtte na te incha allah ci ay fan yu néew am nañ yaakaar dinañ bokk ci élection yi bokk ci élection yi nag lu ñu tax a jóg mooy pas falu falu pour falu loolu moom amul sens amul solo lu am solo mooy lu ñu doon xeex ci coalition di ko wax askan wi di ko doxee ak askan wi ba yàlla may ñu ci ndam tey nañu askan wi gis ñu doon benn say di xeexal askan bi di waxal askan bi ngir ëllëg ñu mën a am yaakaar liggéeyal askan wi euh, mbokk yi nag fu may daanalee mooy woote une fois de plus à la lucidité à la sérénité o calme lenn rekk fi am solo mooy l'essentiel te l'essentiel mooy Sénégal loolu laa bëggoon wax bañ a guddal di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan nag yàlla yàlla continuer di kattanal Sénégal di fi yokk sutura biir euh, biir euh, biir réew mi te di may tamit askanu Sénégal aafiya ndax Sénégal mën a jëm kanam ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen di sant te di leen di ñaanal jërë ngeen jëf mbokk yi.